nga wax ci un peu Guira ban aperçu la ci am rarement lañ lay gis nga def sortie di wax jot nga biñ fi quitté ba Il y a des choses qui sont passées équipe bi dem na ay dem na ay compétition mu yu yëpp day ñew parfois sans sans sans victoire finale yow ban aperçu nga ci am actuellement en tant que euh, un acteur. wa xam nga football nek dafa yombul mais je pense que équipe bi buñ xolé aussi biko ko Aliou Cissé yore ba légui je pense que ñu ngi def euh, liggéey bu baax té ñu ngi ñu ngi ki palier quoi ñu ngi ñu ngi progresser ba pare chaque année ñu gis ni ñu ngi dem ci benen palier voilà amna benn année demi-finale année bi stop finale j'espère que kon année bi di ñëw euh, dinañ dinañ gagner coupe bi quoi je pense que mu ngi def liggéey bu am solo voilà je pense que il faut que sénégalais yi jàppale ko andax mom parce que Sénégal bu gagner ñu peut gagner bu perdre ñu peut perdre voilà buñ xolé finale bi contre Algérie mais avant match bi rek sénégalais yeb jubilé nañ parce que ñëpp. gëmoon nañ ni que ni coupe bi day ñëw Sénégal mais nag xam nga àdduna nekk euh, am na koo xam ne moom moo fi nekk mooy borom bët bi ki nga xam ne mooy lëndëm di leer koo koy joxe xam nga ni ki yow mën nga sabab lu def lu nekk mais bu nee déet rek déet la quoi léegi nañ continuer rek liggéey je pense que nit war nañ ko jàppale encourager ko xam nga après li may gën a dénoncer man ci football sénégalais mooy les dañuy nekk di wax noo joueurs yi dañu màgget joueurs yi dañu lii naqarlu quoi man pas man ça. man man je m'en fous mais le fait que nous ñi tout le temps dañuy tok ci télé yi jours, jour bi dafa màgget jour bi dafa li te ku ci nek ñom je pense que bu fekkon mbokam la wala ay frère duñ ko wax il faut que ñu bàyyi entraîneur bi jël ay responsabilités am jël ay jouram oo ku ko neex mais buñ footballé après nek ku mu neex mu wax mais il faut pas que ñi tout le temps da ngay dégg jour bi li jour bi li il faut que ñu bàyyi entraîneur bi mom lañ jox équipe bi mu ngi def ay liggéey te nii mu ngi def ay jéego yu baax di gagner dem final xam nga. mais nañ ko bàyyi mu moom mooy sélectionné ku ko neex il faut pas que nit ñi di dugg ci loo xam ni voilà. Euh, euh, loo loo wax loo xalaat loo xam ci entraîneur bu def cinq ans ci équipe nationale euh, pratiquement amul gannaaw progression bi ngay wax noonu mais derrière y a rien lu peuple bi xaar bi lay gis ñu ko lan nga ban ban appétit nga ci am lan nga ci xalaat. peuple lu ñuy xaar. trophée. waaw mais trophée yàlla moo koy joxe moom <laughs> li mu mën mu ngi koy def mooy que mu ngi jël équipe bi di ko tàggat équipe bi di dem xam nga kon je pense que il faut que sénégalais ko. non manqué ça veut dire que manqué. dara manqué manqué parce que je pense que joueur yi am au niveau dara manqué d'après yow. non comme li wax nee joueur yi non mais entraîneur du football mom, football. day équipe classement am tactique voilà après joueurs yi respecté et je pense que voilà non choix est mon c'est ses responsabilités ça veut dire que mon soo xoolee équipe bi jëlee na ko demi finale yóbbu ko finale je pense que loolu progression la léegi il faut nit ñi bàyyi ko aussi bu jëlee équipe bi incha allah deux mais bu yóbboo équipe bi finale mais boobaa nit ñi bu leen neexee après ñu wax mais lépp loo gis ci àdduna ah loo gis ci àdduna rek progression la et je pense que équipe bi mu ngi pro mu ngi progresse ak jour yu mu yor kon xam nga sénégalais nag moo xaw yàkkamti mais incha allah je pense que affaire bi mu ngi ci yoon bi quoi. moo tax gars yi da ngay comprendre gars yi waaw waaw c'est vrai que Sénégal yi dafa bëgg football parce que tout le temps bu équipe bi demee ñu ngi xaar coupe c'est vrai que yàgg na Sénégal amul coupe mais képp ku sañoon euh, Sénégal day jël coupe voilà je pense que mais il faut que nit ñi nekk benn xam nga xol yi nekk benn je pense que coupe bi dina ñëw quoi incha allah non non man duma man duma comparer parce que àdduna loo gis rek ki kii day dem. bàyyi ci yenn par exemple tey la moo nekkoon ci yenn nekkul ci nii wala moo nekk ci nii euh, yenn par exemple nekkul ci yenn mais mom la lay xam nga génération mun comparer ku nek rek ak sa génération ku ñëw da ngay dem bay keneen ñëw voilà après ñom je pense que ñom am nañ chance chance bi moy ñu ngi joué benen kante et je pense que te ñoom même groupe bi la je pense que dinañ am chance bobu pour mëna gagner coupe bi quoi. mooy leader bi wala équipe bi. wa non équipe il faut mu am patron. mooy patron bi. waaw ah mais équipe il faut mu am patron équipe faut dem ci aduna bi équipe foo dem day am patron. je pense que patron boobu leader boobu mu ngi koy jëfee saa su ne. waaw non xam nga man mënu ma nekk ci bopam mom ah, non mais ah, li nga gis yow est-ce gis nga ni lolu mu ngi wa waaw waaw match yi ma mu ngi jël ay responsabilités mu ngi jël penalty di dóor parce que leader aussi je pense que buñ né leader lu am ci équipe bi da nga ko war jël jël ses responsabilités bu penalty amee mu jël dóor bu coup franc amee mu jël dóor. loolu day wane ni que ni moom mooy leader équipe bi. est-ce que gars yi buuxuñu ko obligé forcé ñu ko mu jël ko est-ce que yéexul jël responsabilité ah man bi may joueur man kenn du ma wax dëgg yàlla man moom laa leex man man bi may nekk joueur man maa jël sama responsabilité boobu man kenn du ma ne jëlal sa responsabilité voilà je pense que moom aussi joueur la dina jël ay responsabilités am boo seetaanee Liverpool aussi il prend loolu dafa am solo quoi. sa sa sa rapport équipe nationale euh machallah gay da nga doon ñëw ah, jaan nga am sélection yu bari tout le temps dañ la don gis ci pratiquement bi ngay nek équipe nationale euh, sa rapport équipe nationale lan la yane souvenir les meilleurs souvenirs nga garder équipe nationale lo xamanteni ne les gens mosuñu ko xam boo ñu ko mënee expliquer tay lan la la mooy les meilleurs souvenirs ak ay anecdote bi ngay nek équipe nationale lan la. non ci match yi wala je sais pas man. soit ci match yi lenen en en dehors du match bi yenen côté terrain yu mel li xewu lo xamanteni ne peut-être que les gens non mosuñu ko xam. peut-être ñu ko mënee wax tey lan lan yan anecdote wala yan souvenir yan moom sama kii quoi match bi nga xam ni moom gën a marqué ci équipe nationale mooy Sénégal Cameroun voilà Sénégal ah. dégg nga wax Stade Léopold. waaw Léopold waaw ah, sama boobu moom moo ma gën a marqué ci match yëpp quoi parce que je me rappelle bi ñuy jógee euh, Ngor ba dem ci kii stade mais bus bi nànk la woon parce que supporters yi dañ ko waroon. xam nga après nga dugg ci stade bi stade bi fess del xam nga nga dugal 95e minute ñepp mabbu ci stade bi xam nga lool football rek moko mën voilà kooku mom xam nga je pense que moy sama meilleur souvenir euh, ci équipe nationale. Sénégal lan anecdote à côté ay anecdote yo xamante ci ci regroupement yi ci vestiaire yi lo xamante ne mën nga ci expliquer lan lan mo ci xewoon durant biñ fay nekk yépp wa non mais xam nga li fa xew mom bari na du du lépp ngay japp quoi xam nga équipe nationale mom li fay. li fay xew li nga jot japp lo loo xam mën nga ci expliquer lan. li ma jàpp ah non xam naa ni moom bi ñu nekkee équipe nationale euh, sama grand Ousmane Doy moom wax dëgg yàlla moom moom anecdote yi ma am ci moom moom nit ku baax la nit koo xam ni amul benn xar ma yàlla quoi mais fu ñu nekk dina def ba nit ñi di ree xam nga moom moo doon bokk moo doon joxe non pas comédien mais moo doon joxe bon humeur quoi nit ñi fu ñu nekk ak moom dinañ ree. xam nga moom ak waygo dinañ reeloo nit ñi bokk dañ doon dund lu neex quoi euh, surtout moom ak waygo parce que dañ doon def le tout ba fu ñu toog rek nit ñi dinañ ree dinañ kontaan du du am mer waaw kooku moom anecdote bu chaque jour moom foo ko fekk foo ko gis moom day reeloo nit ñi te loolu aussi dafa am solo ci groupe quoi koo xam ni bu ñëwee rek ñëpp dañuy kontaan di bëgg waaw kooku moom Ousmane dooy wax dëgg yàlla côté boobu moom chapeau quoi voilà macha allah. Eh, eh, surtout toujours ci équipe ci balaa ñuy dugg si dernière partie bi toujours toujours si équipe euh, nga wax ñu un peu par rapport ak euh, même affaire boobu ah euh, mën nga dund aspect mystique mës na la arrivé équipe nationale. mystique non pour wax vrai non non non sa bët ci bi grand nee naa la man dama dëgër bopp man am na yoo xam ne du ci kii sax. man mais mës nga toog gis loolu ci équipe bi mu xew ci équipe bi. non non toog nii gis non man équipe nationale man dama daan entraîner wala sama néeg laay nekk wala ma dem ci néegu Ousmane Doy comme li mu wax mais sinon am na yoo xam ni moom duma ko du ma ko kii quoi du ma ko calculer quoi voilà man non musuma ko gis nag bu fekkee am na aussi man musuma ko gis quoi voilà musuma ko sérieusement musuma ko gis.